tey nag ñu ngi am mbégte am contentement ñëw fi nga xam ne moo di Médina particulièrement rue 39 angle 30 ànd fekk Baye Fall gi waa café gi ñu ngi joxe ndogu chaque jour ñuy joxe ndogu waa gis nga de xam nga café gi moom dafa yàgg daanaka bi ñuy commencé ci benn casserole bu ndaw la ñu commencé ci jamonoy ñoom Omar Baye Fall Omar kafe ak Bàcc Ñinga ñoom ñaar yàlla dafa dogal ne ñoom dañu voyagé ak yenn booy yoo xamante ne ndem si yàlla si Madiaw ak Babacar Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen dañ fee bëri woon mais tey bu ñu demee ba am initiative bi boole ci Ndiogou Afia bin tamit mu suñu frère nekk suñu xarit nekk suñu lépp dañu bëgg lii ni secteur bu nek nga jël référence ci café gi parce que café gi ba muy dortal metti na won trop mais tay car macha allah quoi ñepp ngi fi déggoo ay mag ak ndaw suñu yaay Rama Thiam fekk tamit ñen xamne boba mom mu ngi ni sax dañu bëggon tamit après tamit ngeen jël ko mom mu sanni ci cadeau mais ñi ngi naan dal li mu am continuation bu rafet dal waaw ñu ngi nii ak sunu yaay bi nga xamante ne moo di maman Rama ku ku ko gis euh, dootoo ko xàmmee na na macha allah moom mi nga xamante ne def na théâtre lu rëy rawatina nag mu dëkk Medina ñu nekk Medina maman Rama ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay yéen waa 7actu ah tubarkalla macha allah lii lépp tey c'est la Medina ndax 7actu ci biir Medina ngeen ñëw fekk xale yi café gi ci 39 angle 30 lépp c'est dans Medina di leen ñaanal nañu yokk ba yëg ko ndax ba ñuy commencé metti woon na waaye seen jom seen euh, fulla seen fayda ak seen dogu jàpp na ci ba tey ji mi ngi dem tubarkàlla macha allah te nag kanam lay jëm may ñaan yàlla mi dara tewul nii ñuy booloo di ko def fii yàlla nañu toog ba seeni doom di ko def xale yu baax nañu yaru nañu suudewu nañu xàmmee nañu mag ñi ràññee nañ leen tubarkàlla macha allah nag koo ci ne woon kaay dem marché jëndali ma géej mbaa euh, lee day dem tubarkalla macha allah lii ñuy def bu weeru koor teroo ñu ngi ci bu ñuy wari ñu commencé enchaîner dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm ba bu ñëwee lu ñu leen joxe dañ leen ci fekk nag di leen jàppale ñuy gërëm bonne volonté yi nga xam ne ñu ngi ci biir gox bii ndax mag ñëpp dañ ci dugal seen loxo ñëpp ndax am na commencement bi ñu koy def am na benn xale buy liggéeyee fii René Senghor kooku euh, chrétien la mais gis nga ndoguli kenn daawu ko ci ëppale kenn daawu ko ci gënle kenn daawu ko ci gën a dogu day def poosam ba pare it taxaw di servir bu nit rëne du lekk seen kanam fii la nekk ci biir atelier bi xale yi daal seen entente bi ñu am yàlla mi dara teewul ñaan naa ko ci dara ji Seydina Mouhamed yàlla na ma leen yàlla aaral yal na ko yàlla gën a téye yal na ko yàlla téeñ téyal leen ko ba seeni doom di ko def ci dara ji Seydina Muhammad. Arama lan ngay wax ñi nga xamante ne bëgg nañ def lii. mbir mi dara diisu ci bu ñu waree yéen yi jeunes yi nga xam ne dañoo dëkk ca quartier ba waxtaan ak seeni kilifa ak seeni jigéen su ko defee ku am dërëm ñëw indi kuy am juróom ñu ñëw di indi bu yëf yi taxawee nga teg. boo tegee da nga bonne volonté bu nekk ci koñ bi génn ñëw jox leen lu bari mais nag du ngeen toog rek naan duñu ki déedéet te weer wi dafa nekk weer woo xam ne lu ci waay mën ci lu baax nang ko def ndax jànguma bu baax de waaye dégg naa boo defee benn bu baax ñu fay la fukk nga def fukk ñu fay la téeméer kon a dëgg-dëgg soyons unis ok ma waarama jërëjëf ndax guddi tey jii dafa nekk guddi spécial ndax xale yi tey jii dañu am gan goo xam ne tubarkalla macha allah ku mu gane ji nga ne ko te fadal muy njóogu Afia moo ñëw fan yee passé la maye tey mu ñëw ci kafe gi 39 ne leen cant gi nag tey kenn moomu ko yéen a ko moom kon koo xam ne xool nga lii ci kanam tuuti à 21 fii lañ koy defee te xam naa di ngeen ñëwaat sax. ñu ngi fii kay ba boobu affaire yi jeex incha laa ko bëggee kon à tout bu soobee yàlla waa kay tamit yal leen yàlla defal jàmm te set actu ca kaw. jàmm feetal feexal ngelaw الخوران دم كويت ثم بيل خال دالل ثم بيل